asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi nii ñëpp eh, li ñuy tuddee hormone dérèglement hormonal hormone yu jaxasoo te am mbokk mi ko doon laajte ñu bëggoon ko ci indil tuuti leeral xam naa balaa ñu sori war nañoo leeral luy hormone parce que xëy na nit ñaa ngi koy dégg hormone nag yi koy libéré ci biir yaram bi mooy li ñuy tuddee glande glande yi ñoom ñoo koy libéré mu jàll ci deret ji waaw ah, baat bi mooy baatu sécrété glande yi ñooy sécrété hormone ñooy génnee loolu su génnee mu jàll ci deret ji eh, njëriñ la ci nekk mooy mooy dundal organe yu bari waaw organe yu bari ngir ñi mun a def seen warugal ci biir yaram bi eh, yooyu di génn ci hormone yi ñoo leen ciy jàppale kon na nga gis ne lu mënta ñàkk la lu dérèglement bi nag mooy bu demee ba jaxasoo moom hormone yi yenn saa mu dem ba jaxasoo bu jaxasoo nag jafe-jafe la waaw euh, ki nga xam ne hormone nag dem na ba jaxasoo dem na ba déréglé am nay màndarga lu mel nii diir bu amee graisse waaw bu ko defee biir bu rëy lu mel ni muy góor di jigéen nag toog rekk amatoo yëg-yëg ci wàllu sëy loolu loolu màndarga la wala ki fàtte fàtte fàtte fàtte bu bëri wala ki xëy rek naqari deret waaw xëy rek naqari deret lool yenn saa yi hormone dina ko def waaw yenn saa yi nag laa wax wala ki jékki-jékki rek yaramam di génne lu tàng jër waaw tàngaay tàngaay tàngaay wu tar di génne ci yaram wala guddi gi muy ñàkk tooy xepp loolu tamit hormone hormone yu jaxasoo dina ko def su dee ci jigéen moom dina waral muy dem ba kanamam di wow coono gu tarit dina ko waral hormone yu jaxasoo Euh, méttitu bopp waaw saa yoo la fekkee yaa ngi koy jàmbat méttitu bopp yenn saa yi tamit ah, jar na bàyyi xel ndax hormone yu jaxasoo dina ko dina ko waral yaram mu jéggi dayo waaw amee yaram lool wala yaram wi nga xam ne dafa bari ndox te ndox mi éliminé woo ko borom li muy tur ndox du bari li ki nga xam ne su lekkee pour mu res dafay jafe kon nag gis nga ne hormone su demee ba jaxasoo ba déréglé ci yaramu doomu aadama yii yëpp dana ko dina ko tegee kon nag eh, lu mat a bàyyi xel la ndax kon loolu mooy tekki ne jaxasoo moom baaxul baaxul ci nit ki waaw hormone nag yu bari façon la waaye lenn lu nekk daf ci daf ci am lu ko tax a jug waaw am na hormone bu ñu tuddee leptine waaw boobu mooy su mi ngi ci yow lu doy mooy mooy waral ngay yëg ne eh, xiif nga boo xiifee moo la koy yëgal waaw waaw am na bu tudd ghrelin boobu moom mooy tax nga amee appétit waa ah. am na bu tudd mélatonine kooku mooy tax ngay gëmmintu am na bu tudd cortisol bu na dañ nan mooy hormone stress waaw bu jéggee dayo ci yow da ngay stressé waaw waaye tamit mooy gérer sa stress waaw am na bu tudde lu tudd oestrogène ak progestérone kooku ci jigéen ñi la ëppee daanaka Euh, yi ñu tuddee hormone hormone sexuelle la ci jigéen am na bu dul testostérone mooy hormone góor kooku góor ñee ko yore kon gis nga yooyu yëpp rek benn bu ne dafa am boo seetlu kon nag loo gis rek ci doomu aadama du neen hormone yi nag dafa li ñuy tuddee glande glande di xanaa micro organ lañ koy firee xeetu organe yu ndaw lay doon bu boobaa nga xam ne ci ñoom ñoom ci la hormone yi di jóge hormones yi genre message la rek bi nga xam ne glande yooyu ñoom ñoo koy envoyé ci organu yaram bi yëpp kenn ku ne ñu ne waaw sama am jëlal lii jëlal lee waaw hormone bi hormonu gëmmentu bu yeggee ci yow ah yaram bi nga nga yëg ne da ngaa gëmmentu hormonu xiif bu yeggsee nga yëg ne da ngaa xiif kon nag yooyu dafa baax parce que dafay am lu muy màndargal ci dunde nuy doomu aadama bi manque su demee ba jaxasoo nag jafe-jafe lay indi waaw bu yàggee sax day indi problème mu wér-gu-yaram kon nag euh, li ci am solo rek mooy prévention bi nan la ñuy def ba mu moytundiku loolu dal nga dem ba say hormone jaxasoo li ci njëkk mooy wàññil kafe waaw café gu jéggi dawee dina ko def waaw leneen li mooy bul inventel sa bopp ay xeetu régime waaw Euh, xëy rek ne bàyyi naa li dootuma ko lekk wala bàyyi naa li wala bàyyi naa li waaw parce que dangay dégg rek parce que même ci wàllu lekk da ngay seet ki ci tane ci côté nutrition lan lañu war a lekk lan lañ war a bàyyi nga déglu ko ci waaw waaye bul dégg rek ne bàyyi naa lii lii baaxul ak lii baaxul ak nit ñëw ne cere baaxul nga ne ah, bàyyi naa cere wala lii baaxul nga nga xeetu lekk yi nga xam ne sax am na njëriñ nga dégg ci dégg-dégg rek ñëw tere ko sa bopp waaw loolu baaxul parce que mën na la indil jafe-jafe hormone surtout bu dee loolu yaram dana ko soxla yow yaa ko yow yaa ko aay sa bopp rek ak wàllu nelaw nelaw nelaw bu doy dina tax tamit sa hormone euh, bañ a jaxasoo wàññi wàññi produit cosmétique yi yi ñuy diwoo surtout yi amee hydroquinone yooyu yooyu gënul dafay dafay jaxase eh, ay hormone waaye kii bañ hormone jaxasoo tamit nay bàyyi xelam ci foam waaw ah, foie bi yenn saa yi ñu agressé ko ci xeetu naan yi naan surtout yu bari walla sax xeetul rek kon nag dundin gu sell naan gu sell waaw dundin gu naturel naan tamit lu naturel rek waaw ci gàttal Euh, di faral di jëfandikoo fruits yi doy ak légumes yi doy yooyu dina tax dina la jàppale ba jafe-jafe hormone bu jaxasoo yow mën naa bañ a yegsi ci yow euh, kon nag yooyu leeral lañ bëggoon indi ci laaj boobu mbokk mi laajoon salaamaaleykum wa rahmatullah